jamono jii moom surtout si weeru koor yi ñu ne kenn ku nekk xéewal mën na di la bett surtout si sallallahu ala muhammad moo tax moo tax koor gi gaa yëpp dem si youtube bi kun fayekoon tv foofu secret boo xam ne ne pour xaalis rek la si yenente bi rek wallahi moom laa fay jàngale kon yow yow mbokk mi nga xam ne da nga bëgg xéewal bett la si weeru koor wi nii ñu ne jëlal ma wax la 635 sallallahu ala muhammad 635 ngay def sallallahu ala muhammad li nga koy tijjee nag mooy istixfaar muy baat astaxfirullaha astaxfirullaha 236 nga def sallallahu ala muhammad 635 kañ nga koy def soo jullee fajar ba pare def ko soo ndogoo ba pare nga def ko wallahi foo mën a toll xéewal chaque jour mu lay bett bu si ñaan dara nag def ko xàddee yenente bi bàyyee sa bopp ak yenente bi nga xool kon nag seen mbokk seex Ibra la rek